waaw booy topal wallaahi tallaahi barke alquran boo leen koy daan yow xam nga man dama form man nga ne lan la la sax ñang wax nee na ma billaahi boo ñang day daan du samay wax du say wax de sa jaxasew ma it nga ne lan yow yow yaay laaj kan mooy Cheikh Niang yow nga ne ah, Dieng ah mais booy ñaanal moom dina bëri moom ci sariya jàpp nga loolu dina bëri moom ci sariya takbir gars yi allahu akbar mais lan lan la gars yi di nëbb ci communication wu lamb ji wu lamb ñaari cas yëpp dañu nëbbatu la ah, kenn mënuñu mësuñu xamee a

xam nga marché ba nekk Bignona la Grand Yoff. mooy la mooy la mooy la bu la premier président mooy ñëw. président kan. Modou Lo. wala eh, ministre yi topp ci ginnaaw. ànd ak premier ministre. ma ne ko ministre yi topp ci ginnaaw. kan mooy premier ministre. ñu ngi fay taxaw moom mi may premier ministre. mais Franc lu gars yi di la daw lan la. gars yi lu ñuy daw. lan la ngeen ban problème ngeen am. nee na mu ko xar a lekk moo ko may doon. boobu da leen di bëree roo xam nga ñoom dañoo taxaw boobu day <laughs> ñeme nga ma waxaat fii ci combat bi le premier. le premier comme d'habitude rek. ñëw daal bilaay daal géwél. géwél yëpp bale dégguma. loolu yëpp bale yéen di jëfandikoo yéen buuxal suuf. géer ga daan na géwél ba loolu ngeen ci rëy. waaw mën nañu ko garaawul. te dama ne lu koy daan dundee maa ngi ci ba sax si gin. su mën na ko gëm dund. mais Papis Papis Papis leen ne leen bay bukki bi du for bay bi maa. wallaay mën naa lëndëm bukki bi sooy ñibbiwaat ndax borom bëy day toog tool wala bu leen demee mën na wër buy de. déggoo bëy daje gaynde APS Modou ci dynamique bi mu nekk nii moom. macha allah di ñaan yàlla sport sport quoi. boo ñaa gis nga ci ay qualité yoo xam ne nii war naa tax yéen ñi ànd ak Modou Lo gën ci am na ay qualité mais amul dara lu ñu daree nelaw ci moom. ak calcul beeg mental bi. ñoo ko daax ak bëri bi. calculer la dégeer ba mu jeex. faale woon dara. la dégeer machine à Serigne Ndiaye ba le premier incha allah ñu ñëw ñu du ma ko di waajal le premier jugal nañu jàkkaarloog man. Papis Sénégal dañu la namm quoi ni jàmm suñuy xarit di ñaan yàlla mu yóbbuñ suñu jàmm ak jàmm ñu duma mëna ma faram le premier lañu xamné golo ci ndig lañ koy yew non kon ñom yex nañu xamné golo ci ndig lañ koy yew galé modu fekko fa golo ñu koy yew ci ndig kon ñom le premier lañuy xaar pour xam lolu tardé nañ dé papi lan lan moy ñew le premier lan moy ñew le premier na sénégalais yi modlo ci ko natt ba né fi la tollu ban problème lañu am ak modlo le 1er janvier le combat modou commencement ba fin ban combat rek nga ci gis bu wesso ay kaw suma tour ban combat nga ci gis mu tan ci nit ñaar yoon ci même action amul seetaanal combat bi yëpp même ñi mu kaawoo sax bokkul ni mu leen kaawee kii da dóor mu këpp kii mu dóor ko mu toog kii mu dóor ko mu demee côté xoolal combat bi yëpp. mais gars dañuy woo naan Boy Niang dafa mën a xeex boobu li ma koy dégg Boy Niang mën a xeex day xam nga ci xeex bi. lamb daal ku la ne maa ko mën wala maa ko xam ña baal ba dimanche amul dara lu ñuy tiit moom Fadam pour ma wax la waaye. xalaatu bi dara mais lu ñu ah mais du dara làmb la rek moom mi ngi nii dugg na géej waaye raxas ko mu set xam nga ñun tamit ñu am yéene dugg Pikine raxas ko mu set te yàlla dimbali nañu ba ñu ngi ci càppaandaw bi. mais nee na Modou boo dalee ci moom bu bu ci moom nee na dugg Pikine. waaw ah, dama ne bu njëkkee woon ci moom. kon instant yii duñ bëriwaat. ndax kat duñ ko jox avance Modou ba mu jël ko bu njëkkee woon ci moom.

ah mais loolu moom la moom la concerné moo xam loolu koy moom la loolu man concerné wu na en tout cas Modou li bëgg def wala li bëgg wax min def mënu ko teree def ci kanam Boy Niang ak mu mën doon nga naan ma Boy Niang mais ndax gis nga ci Boy Niang benn ci benn côté mu ngi wax ne ma Lo nee gëm na ne moo dàq bëri Lo moo ko mu koy gëm yaa ngi ni yow gëm vidéo gëm sa vidéo vidéo ñëpp mais ñi xam am jarul mais combat bi fan la toll ci yow yow mi nga xam ne nii tey jii mën nañoo wax ne am nga leen quelqu'un boo nekk ci côté Modou Lo combat bi fan la toll ci yow. benn benn rek benn préparation nii rek comme combat yëpp waay waajal ko normal nag dem dugg ci bismillah rahmaan rahim ñaan yàlla génn ci alhamdulilah rabbil alamin kese mais ñu gis ne Boy Niang numéro 2 estafam mu nekk benn estaf boo xam ne bu bëri ay mag ay magu làmb Modou Lo nag gis nañ ko muy ànd ak ay meilleurs amem tey ji lan lañ ci mën a xaar ci yéen ak ah, ci côté communication lamb ji gars yi dañ ko dencee quoi gars yi nangu ñoo wax ba léegi ñaari kaay yëpp dañoo téye wax ji kenn nangu ta wax lan la gars yi di nëbb lu bañ mu feeñ loolu moom lu rafet la parce que ku ci nekk da ngay ñaan yàlla am ci saab boo xamante ne macha allah matur nañ ci xel ba pare xama di lay encadré xama mais ñun teeruñu loolu parce que saab dina indi keneen ak keneen staff yëpp staff bi yëpp wax ma ko moom sax mu kon ñun keer ñu loolu. mais ñoom ñu ngi def benn déclaration pour Pikine gépp nekk benn pour ñu mën a daan Modou Lo nga dégg Pape Sarr wax ne tey jii bu Modou daane daanee euh, Boy Niang defet li ci waa Pikine loolu tey noo ko jàngatee. loolu kay dañ koy rafetlu parce que mbooloo moom mooy doole xam nga te féewaloo moom kenn ñaanu ko xam nga amul adversaire amul kenn ku mu mënta doon da ngay ñaan yàlla ñuy nekk benn sax loolu lañ leen di ñaanal bëgg ñu nekk benn xam nga ba ñoom ñëpp mbëri yeeg sàppe yëpp nekk benn ñu ñëw ñun tamit ñun tamit moom comme tamit ñun ñëpp xam nañu suñu benn moom macha allah ñëw rek yàlla may ñu ndam ñu tourné page bi génnaat ñibbiwaat parcelle jubluwaat nekk ci leneen incha allah. mais ndax am na lu mu li Boy Niang di moytu Modou Lo li ci Boy Niang. lan la

comme niñ ko doon waajee niñ daan ñëwee ñëwee comme niñ ko doon amul dara lu ci changé niñ daan waajee rek la ñuy waajee ñaa jàpp nga ne dina taxaw suul ay ak li ah, lu indi de wóor na lu ko neex mais ndax jàpp nga ne moom booy ñaa dina ñemee taxaw suul ay tàggam xeex ak Modou waaw loolu moom la loolu moom la moom moo xam lu muy indi bu ñëwee ne day dëgër moom ak Modou dina ba mu neex Papis wax la wax le premier diggante Boy ñaa Modou Lo. waaw ah. mu ne ma mu Boy amul lu mën a jaaxal dara ci Modou Lo. waaw ah, lan lañ mën a jaaxalee Boy Niang bu jaaxalee ñu ñu dem tëdd nelaw waay ñun dañuy nelaw ba doyal nelaw ba yandoor lekk ba suur duñ ko sax waxtaanee. lan la lan moo nekk ci combat bi. xam ne ñoo mën ñun ñoo mën xodam. yéen a ñoo mën ñoo ëpp doole ñoo dàq bëre ñoo dàq xeex. mais lan la lan la lan la lan la. seen diggante Pikine du lenn lu dul entraînement. li nga wax nii lépp foo ko teg foo ko teg. entraînement ak lépp jël lépp teg ko ci loxo yàlla sunu borom. moom moo moo mën moo mën moo mën moo def mooy def lépp mais ñun dañu xam ne ñoo mën. waar bi génnee suñu diggante la première bi nga xam ne ñoo mën. mais Modou Lo na ngeen waajal le premier janvier mu dugg Pikine bëre woon ak Ama Baldé barki de moo Ndiaye daan Ama Baldé ngeen jël Boy Niang mi nga xam ne tey jii moo gën a dangereux dañu waroon def le premier le douze ñu xam dégguma dañu ko waroon def le premier cinq ak le douze mais dañ ko def la cinq ak le premier am na temps sax day gën a récupérer gën a entraîné waat fan ngeen toll ci wàccaay seen diggante ak Boy Niang pare nañu ak Boy Niang ni mu dangereux Serigne Ndiaye pare nañu kay ngeen ñëw ci Instagram dégg ko <laughs> baña ay toog nga entraîné ñun pare nañ de foo ko dégg daal de gambi gami yéex nga dem gami? de kan lay gambi ah ah moo xam na fa mu dugg fi boo ñaa gambi ah xam na kër gi mu dugg fa mu dugg mais tama kañ dafa dangereux de bu del woo bu ko sangoo bu del laal nga ay gambi ko rek boo ñaar daa dugg kër goo xam ne waru faa dugg ba Banjul maa ko mën maa ko ëpp doole sëriñ ñaa na nga jëpp jox information ne boo ñaar daa dugg Banjul waaw yow ñun Sénégal lañ dëgg de am naa toog fépp fépp laa am pion kon combat bi boo ñaar mu ngi tëj mu ngi tëj àll bi mu ngi ci àll bi laa la wax yow affaire yi du foofu de affaire yi entraînement la teg ngemb ah ànd ak yaa oustaz ñëw mu teg affaire yi ci axe la ilaha illallah